royal gi e ko ci xam-xam la moo dugal KBN royal gi ko ci xam-xam nga moo dugal alhamdulillah maa ngi sant buur bi ñu def ñi gën ci xeet boole ko tey wóolu ma yàlla gën a wóor xolli du ngeen réer doyal di ko ndigam xam nga moo du ko siiwaa suma salaatu ma salaam ala nabi waalin kiram ak ñun moo ko siiwaa xolli basiiru laa gën a wóor xolli du ngeen réer doyal di ko ndigam xam nga moo du ko siiwaa TVI KBM nga ci mbër mu doon nii nga yàlla may ma ay way ci Basiiru laa gën a wóoru ko leetu ngeen réer royal ci Basiiru laa gën a wóoru ko leetu ngeen réer royal jikkoom di gam xam nga Modou Basiir waaw da ngeen taxaw tey lii may wax ko si réew mi di seen sëriñ di seen yaakaar Modou Basiir waaw roy ci Basiiru laa gën a wóolu ko ndéet du ngeen réer royal jikoom digam xam nga Moodu Basiiru lu leen taxaw lu lii may wax te jaaba kookol yow bul doo tàng doo dal Moodu Basiiru roy ci Basiiru laa gën a wóolu ko ndéet du ngeen réer royal jikoom digam xam nga Moodu Basiiru baaru sëriñ xamul lu dul yàlla yonent te dootu muy dootu wut biram aduna tabi'in am nga Moodu Basiru wa ngay taxaw tem ndax yow ay mbiram bu na faat yaa sakiyu seen waatal Moodu Basiru ويرجعهم دقم قمنا مود بسير وعدون سرين بدي لا يتلم عمل بكوسا نمنا وجون بيجلا كي مود بسير رد بسير لا قلور كل دقير ويرجعهم دقم قمنا مود بسير وعدون سرين buddi laaj nit lum amul di ko sal nan nag ma jox li yàlla cay Modou Bassiré roy ci Basiiru laa gën a wóor ko ne du ci moom ndigam xam nga Moodu Basiiru gëmal am ay mbir ci moom yu kenn amagul a wóor ko ne du ngeen réer royal ci moom ndigam xam nga Moodu Basiiru gëmal ci moom ndegam amoo yow martaba da am martaba tan ba far gee bi in roy ci Basiir laa gën a wóolu konde du ci kaw ndigam xam nga Moodu Basiir seetal ci ay mana yoo xam ne da ma te doo gisee yooya maramam Moodu Basiira roy si Basiiru laa gën a wóoru ko dee jógee reer royal ci ko ndegam xam nga Moodu Basiira du wax lu dul dëgg man loo man du kenn gisee muy dox lu dul ci mbokkam wóolu ko siira roy ci wasiiru laa gën a wóolu ko ndee jógee réer royal jikkoom ndegam xam nga wóolu ba siira wax lu dul dëgg man loo man lu kenn gisagul muy doon lu dul tànk ci mbokkam wóolu ko siira roy ci wasiiru laa gën a wóolu ko ndee jógee réer ba yor jikkoom ndigam xam nga Modou Bassira du lu dul dëgg man loolu lu kenn gisagul muy dox lu dul tànk mbokkam Modou Bassira roy ci Bassirou laa gën a wóoru ko lii jógee reer ba yor jikkoom ndigam caabi en royal jikoom digam xam nga Modou Basira lu wan lu la digaawal amul jaaxaan oyof te dir dana ko kay Modou Basira royal ji Basira laa gën a wóolu ko dee du ngeen réer royal jikoom digam xam nga Modou Basira ba daatal nekkul am na yu soxor du xeet du jëw te du gis tël moom basiiro roy ni basiiro laa gën a wóor ba nee du réer réer royal jikkoom jigam xam nga ba daatal saxar bu xeeb gannaaw te duñ gis dal ci Basiir laa gën a wóolu kon day du ngeen réer ci moom ndigam xam nga Modou Basiir bu ci jëm ma jëm boo li ma wax yow ndegam gëmuloo Modou Basiiró. roy ci Basiiró laa gën a wóor kon de du ngeen wér. royal ci koom ndegam xam nga Modou Basiiró. ma xool ci jëm ma jël. boo xoolee ci koom la gis. kon dee du ngeen réer royal jikoom ndigam xam nga Modou Basiir waaw ku njëkk a jël yaadu njëkk a àgg dawal jëm ci moom yóbbu waale lépp tiitaay Modou Basiir roy ci Basiiru laa gën a wóor kon dee du ngeen réer royal ci moom ndigam xam nga Modou Bassirou ku ñàkk jaw yaa di njëkk a ga dawal jëm ci moom yóbbu waaleel bépp bi yaay Modou Bassirou roy ci Bassirou laa gën a wóoru kon de du ngeen réer royal ci moom ndigam xam nga Modou Bassirou tolal te bëgg loo ay saa waaji kon dawal xam loo xamuloon yow ci lislaam Modou Bassirou roy ci Bassirou laa gën a wóoru ngeen réer royal jikoom ndegam xam nga Modou Basiir ci alquran ba mu ñu ba lu mën ta doon walaay mu waaw la ko ko kaay Modou Basiir laa gën a wóor ko ne doyal jëfam ndegam xam nga Modou Basiir. waaw seetal ko xam lii ma wax am na tuuti li ngay soor ñun duñ ko wax duñ ko waxal it Modou Basiir. doy ci Basiir laa gën a wóoru ko dee du ngeen leer doyal jëfam ndegam xam nga Modou Basiir. waaw seetal ko xam lii ma wax am na tuuti li ngay soor ñun duñ ko wax duñ ko waxal it Modou Basiir. doy ci Basiir laa gën a wóoru ko dee du ngeen leer royal ci koom ndegam xam nga Modou Bassirou. bay baat ba yar moo ko xam moo xam ngërëm te diwaan moo yor mbiram laaj ko kan mooy Mor Basiira looy si Basiiru laa gën a wóolu kon dee du ngeen réer royal jikkoom ndegam xam nga ko yar moo ko xam moo xam mbiram te du Basiira ca daay toog ba yàlla yëg ca ko maa gëm Moodu Basiiru roy ni laa gën a wóoru ko ndee da ngeen réer royal ci moom xam nga Moodu Basiiru waaw dugin na dem fenn ngir am am lu ñee xeetu réer réeru ci kaw ndigam xam nga Modou Basira walal te dimbaluma yow mii déglu yàlla na nga am ci booti Ahmada daan Modou Basira Modou a déglu ma yow mii déglu yàlla na nga am ci mbooti Ahmada taa Moodu Basiira. Moodu Basiira laa gën a wóolu ba léegi ngay leer royal ji moom ndigam xam nga Moodu Basiira. yamal xiyaam karam bu ñu teewee ba ñëpp a doon naa yaa seeku yaa seeku wala maa Moodu Basiira. nay turir ci moom ndigam xam nga Modou Basiir yowal xiyaam keroog bu ñu teewee ba ñëpp toog na yaa saytu yaa saytu wala maa Modou Basiir nay ci Basiir laa gën a wóoru ko nay turir wayal ci moom ndigam xam nga Modou Basiir wala ñu fekk jinne